suka tey nag comme ni ma la ko waxee rek dañuy génn réew mi tuuti nag mm. dem ba fële ca Gabon ñoo xam ne li nag élection yi fa doon tëgg amal ko ba waraloon ñu euh, def euh, couvre-feu ak euh, coupé yenn signal yeeg mm-hmm. coupé internet bi moo yóbbee ki nga xamante ne ni mooy njiital réew ma Ali Bongo jamono ji ñuy wax nag moo ngi en résidence surveillée ak njabootam ak médecin yi nga xamante ne ni ñoo ngi koy faj ñu fàttali ne nag moom nag jamono ji wérul militaires yi nag ñoom ñoo def li ni mel bi ci guddi dem am na ab communiqué bu nga xamante ne ni liiral nañ ko ca seen national ba foofu ca ñu dem xool yi ko dellusiwaat. communiqué du comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux. Falsification de la signature du président de la République. Corruption active. Trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Mohamed Ali Saliou, Oseni, Jessie Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, C'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. voilà mu ngi noonu euh, Soukey mm-hmm. Mbaye kàddu yi nga xam ne nag ñoom euh, yëkkati nañ ko bi ci guddi euh, ci ginnaaw bi ñu génnee résultat yi ñu wax ne nag Ali Bongo moom moo gagné ci yooyu la élection am nag 64 virgule 27 pour cent ci scrutin mu nekk nag peut-être lu jaaxal askanu Gabon ba ba waral militaires yi daal di jokk ñu fàttali nag général bi jiite boobule mbir ñu ngi koy woowee Olingi. Euh, Ngena moom lañ koy tuddee ñoom nag ñu ngi wax ne nag ñu ngi commencé sax di def portrait mu wane ne moom nekkoon na ci euh, nekk na général foofu en plus nekkoon na ak euh, papay ki nga xamante ne nii moo ji Ali Bongo muy Omar Bongo moom mi nga xam ne moo jiite woon réew ma alaaji ci suba rek mi ngi ma koy wax daanaka lu ëpp fanweeri at ginnaaw nag bi 2009 jotee ci la doom ji daal di dikk nekk ci réew ma ba jamono ji ñuy wax ak yow ñu ngi ko gardé en résidence surveillée. bi askan wa nag ñu ngay tàccu ñoom militaires yi seen biir ñoom itamit ñu ngay félicité euh, di yëkkati en triomphe ki nga xamante ne ni moom laa la wax léegi muy général ba jiite boobu les coups d'état Oumar mu mel ni nag jamono ji Euh, li ñuy wax sa waay bi la gën a jege parce que bokk na ci ñi nekk sës ki nga xamante ni nii moo di président actuel bi te en plus ñu ngi rappeler ni doomam jot nañ ko arrêté moom Ali Bongo mi jiite mbir yi moom moo ñëw daal di sànjaafu yëf yi nangu ko ci ko ginnaaw bi ñu génnee résultat élection mhm. yooyu. waaw xam na li xew ca Gabon mooy lu olof di léew bu mu ne. Mhm. ku xamul suur naa dañuy cax sa loxo. wallaay wallaay. waaw parce que réew moo xam ne juróom fukki at ak benn bàyyi ak doom di ko ayante mm-hmm. maanaam cinquante un naa mm-hmm. ñu ne benn sant rek mooy bongo mm-hmm. ñoo yor réew ma ñu dem ba bis nga jël réew ma feebar dab la ba mënatoo dara lay AVC nga continuer di jiite réew ma kan sax la yor nga njëkkat élection yi balaa boobu njëkkoon na fi dem élection ak benn waay bu ñuy wax jumping ñu ne dañ ko gañe mais teewul dafa ngoy sa nguur ga toog fa ba tey ji njëkkoon nañ ko bëgg a coup d'état quatre ans ci ginnaaw mm-hmm. mais dafa échec mm-hmm. tey jii koo xam ne bàyyam la daan àndal mm-hmm. dem ba tey ji nekkoon aide de camp tey ji dem ba mun a ñëw foqati nguur ga am na loolu lépp nag bu amee du bu nekk coup d'état rek ñu bari dañuy foog ni militaire yi ñoo ñëw rek foqati am nguur maanaam bu dee nii danoo dem élection ci ab dëkk ngay ut ñetteelu mandat boo xam ne wara a ko ut xam na Gabon lu tax mu ut ak réew mi bari Gabon amul deuxième tour Gabon premier tour la maanaam bu doon ni deuxième tour tam mën nga tappale ngeen dem deuxième tour. Mm-hmm. mais Gabon premier li bi nag opposition bi yëpp dañoo déggoo rek ngemb kenn. Mm-hmm. dooleel ko na ko demal songu waa ji. Mm-hmm. mais bi résultat yi di rot. mais liñ gis mooy danoo raw président bi. mu xëy def ay tappaleem. génne ay chiffres de waxum avant chiffres yi sax daa am lu xew. li xew Sénégal dafaa xew. mooy danoo xëy couper internet ba. def couvre-feu na kenn du xamati lu xew. Mm. xëy def couvre-feu état d'urgence na réew mi yëpp nañ toog bu kenn génn waxtu yu ba waxtu wee mais loolu te résultat yi génneegul loolooy wane ni yow résultat yi nga nar a génne. du résultat yu jub. léegi bi ñu demee ba dem nag ci guddi gi ñu génne ay résultats xaaju guddi yoo xam ne kenn xamul fu ñu ko jëlee ci Gabon. Gabon gi xam ne <coughs> président bi da ka daan gagné sax da kaa perte opposition Gabon moo gagné Sénégal gi. ci élection yi fi amoon parce que Gabon dafa bëri ay doomu Séné doomu Gabon yoo xam ne ñi ngi fii Sénégal. léegi nag loolu moom moo jur li xew ni ca Gabon ñoo yoroon armée bi jóg foqati ko nangu ko léegi nag mbir mi ni muy lawee de mën na tiitloo ñu bari parce que dem Emmanuel Macron maa koy gis France mu ne ni Afrique di doxee ni bu mbir yi ko ne maanaam ñi mbir mi yegseegul ci ñoom lan jug xeex xeex la xew Niger bu dul loolu buñ bàyyee Niger jàll mhm. lu ne mën na xew ci Afrique mhm. te tey ji lu ko jur mooy couper internet noot waa réew ma na kenn du nooy kenn du sikki dem ba tey jii ñoo xam ne tey bu ñu mësaan def coup d'état askanu yu toog ne déedéet tey jii askanu gën di leen tàccu bay félicité général bi def loolu kon Afrique war na xoolaat seen bopp te daf fi am lu xewoon ci suba bi ma xëyee yëg Gabon sama xel da ci demaat mooy printemps arabe. Mhm. bi amoon dëkk arabe yëpp xëy yëngoondoo njiitu réew ya fa nekk yëpp daanu. mais ci ban printemps lañ jëm. Mhm. kon tey jii li xew Gabon xew Niger xew Mali xew Guinée. xew Burkina non non fi mu ñi ñi mu xewagul nan yeewu. tuuti nan yeewu te xam ne <laughs> daa am loo xam ne du continuer te mënatul ne parce que <laughs> la jeunesse africaine seen destin dañ jël teel ko seen loxo parce que ñun suñu juuti réew yi ragalul ñu France lan ragal boo xoolee Niger France moo leen di défendre Gabon France moo gën di leen défendre mais askan yi c'est le peuple est souverain ñi peuple bi àndal ñooñu rek ñoo am légitimité militaire yan daan bañ da euh, euh, ay at tey bu ñu demee ba ñoom ñiy def loo xam ne day neex askan yi mais africain yi war nañ xoolaat seen bopp. Mm-hmm. ñi jiite nañ xoolaat seen bopp. te xo lan moo daal Noureddine doom ji. doom jaa ngi ni ñu téye te lu ne mën na ko ci fekk. Mm-hmm. mooy bu la dénkee da ngay xam da laa dénk li la dénk moomoo ko mais jël sa njaboot ak sa lépp dugal ci fii rek lay mujj. Mm-hmm. damay faral di ko wax def li la neex am li la neex amul fenn. tomb moomu. voilà sooy bu si suba ñi ngi koy waxtaanee ci rajo bi ma lay wax ne nit ku nga xamante ne ni yow dem nga ba sa wér-gu-yaram sax mayatu la pour nga jiite ku ku am daanaka plus de soixante-dix ans amatoo wér pour mën a jiite nga génn foqat ci say chiffres génne teg ne yow yaa gagné alors ko population bi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk biir Gabon d'accord ci loolu yow loo si wax. waa jërëjëf ma jigéen mm-hmm. euh, yàlla na yàlla def di jàmm ci réew yi ba yu mel nii di bañ a am mais man tey fi may génn avant ma ñëw ci loolu dafa am loo xam ni man dama jàpp ni Ali Bongo mën na nekk victime. ndax. da ma présenté président boo xam ne mënalul boppam dara mën naa am sax dañ koy sang. mën naa am sax dañ koy solal yére mhm. mën naa am mën naa am te il ñi ngi wax ñi ñuy topp nit ñi sax euh, falsification wu signature am yi nga xamante ne nii ñi ngi koy def voilà mhm. léegi euh, bala ma ñëw ci loolu mhm. bu ñu seetloo ci li ma la wax dinaa la ko méngalee fii nga ñëw Sénégal jamono bi Ablaye Wade di màgget nekk ci fin wu mandaam ñi sësoon ci moom ñoo ko doon wax naan ko man nga ko sañ nga ko ba su ma juumal alaaji mi moo doon wax ni Ablaye Wade at yi mu am ku sa baay amoon at mel doo ko wax ni ko demal nga dem campagne wallaay la kon ba léegi ñu gis ni ñi accompagner nit ñi yàgg na nag ci jamonoy na boo seetloo ki ko dugal ci musiba ji mu ne ay àndandoom lañ ay conseillers président Macky Sall fi bërki démb bi mu toogee ñu naan dana ko def ak du ko def dana ko def ak du fa def mu génte def ni defuma ko la ma waxoon lay respecte am ñu ànd ci moom ñii di jooy ñi naan bett na ma am ñoo xam ne sax wax nañ ko lu neexul daal ni bu ñu sañoon nga def ko kon ba léegi àndandoo day ñëwaat kan mooy ànd ak nit ki maanaam nit ki toujours dafa war a ànd ak ñi muy àndal mm-hmm. saa Ndiogou des fois dañuy waxtaan lu lu lu yàgg ba ci biir biiroom bu ñu waxtaan ba yàgg ma jóob nangam ma ne ko ah, loo def baax na mu ni ma déedéet man man bugguma di ànd ak nit te doo wax sa xalaat maanaam xalaat bi génnul moo baaxul hmm. mais suñu gars yi boo seetloo problème bi leen di dal dañuy ànd ak ay nit yu dul wax xalaat hmm. maanaam seen xalaat yi duñ ko génnee te duñ nangu nga génne ko te xalaatu ki ngay àndal dafa am mm, solo pour bu di ko génne te génneen bi nga koy génnee loolu dafa am lu mu lay dimbalee bu ñu sukkandikoo ci bu ñu sukkandikoo ci sukaa baay baal kii suñu sukkandikoo ci lii nga xam ne moom lañ dégg léegi mm. da ngay sentir ne aali gaa yaa ngi ko doon manipuler ci lu mu yëgul ñi mu fi lim mm. te ñu leen di teg loxo ak ñu teg leen loxo lan la ñu def ñenn ñi am na caay-caay gu ñu def ci réew ma est-ce que aale ah, yëg na ko yëgoon na ko très bien est-ce yi nga xam ne gagné nañ ale est-ce que ci maanaam ci aale ci boppam moo ngoy ci waa moo ngoy ci nguur gi mm-hmm. wala sax est-ce que du ñi mu àndal ba léegi ñoo ni ko yaa gagné ñen ñoo coupé waa ñen ñoo coupé internet bi kan moo ko digal ni ko defal état d'urgence kan moo ko wax kan moo ko wax maanaam loolu da ngay xool ki toog ñu la mooy kii mooy président bi yow Sénégal bi demal nga tàppe rek Ali Bongo nga xool Ali est kii war naa nekk président buy dem di xëccoo. am réew ba ñu ko mu naan du ma dem ak man naa dem ñëpp ñoom ñoo lay sa àndandoo du ñëpp ñoom que kii def euh, jëf jii nii ku ko jege woon la. waaw moom moom laa la wax léegi loolu xam nga tey ñii li ñu lim. Mhm. ci ay nit yu def ak caay caay. Mhm. maanaam ci 24 heures yi lii ñu fi lim lépp nekkul woon lu ñuy doog a xam xamoon nañ ko yàgg ni état bi am na ñuy def ak caay-caay gu bëri ci biir et pourtant bu ñu respecté woon li ñu waroon def ñu gàññe leen ñu dem mm. mën naa am ñu jéggal leen loolu ndax des fois am ñu nekk ci état ñu defuk caay-caay ñu jéggal leen ko parce que am na grandeur bu ñu wanee wala am na mm. maanaam nekk wane ne man nitu état la bu ñu wane ba tax na ngi ko ne moom tàllaloon na ko loxo waaw donc moom laa a ñii xam nañ lépp lu ne woon ci biir mais bu fekkoon teg nañu réew mi ci jàmm yéene euh, euh, Gabon ci jàmm mm. dem mën naa am yii ñu fi li bu dee lu ñu sàcc bu dee lu ñu def leen ñu bàyyi dem en tout cas li may ñaan daal mooy euh, mbir yi daal mi ngi bëgg a soof ñu ngi bëgg a soof léegi nag ñi koy waral bu fekkee ne ñi jiite la ñoo koy waral hmm. nañu doxal yoon yi fi yem fi hmm. su fekkee ne du luñ doxal yoon itamit dañ leen di jaay doole ñi leen jaay doole ñu bàkku mais coup d'état daal soof na ci Afrique hmm. na fi jóg ku ku gouverner boo waree dem nga dem Aïssata Tall Sall xanaa dina génnaat <laughs> Aïssata de du génnaat <laughs> voilà jërëjëf sooy bu kaddu na mais sukaa mu baal ma sukaa li ma doon wax dëgg la Sanjoogu li may wax yemaliwu ko ci man dégg nga moom nee na xalaat bi génnul mooy problème bi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais xalaat bi ñu wax amul problème. Mm-hmm. xalaat bi ñu wax léegi xam nañu xalaat baa ngi nii mais ki toogaale xalaatam waxu ko. kookoy problème moom. waaw loolu de moom bu waxoon xalaatam indi solution. wallaay wallaay wallaay dëgg la de dëgg la de dëgg la de macha allah. en lan moo tax suñu njiitu réew yi Afrique daal ñoom daal ñu bëgg nguur. tey bi ma déggee affaire journal. bëgg yàlla damaa tiit tiit boo mm. xam ne mën la tiital. Ah! ah dafa doy waar de. Euh, mais nag euh, déedéet son yi bu. le fait ñoom ñoom ñuy toog rek. ñu def ba lii am waaw imagine loolu ba pare ki la ki la sës rëkk def la lii. Mhm. ñu boole voilà loolu mooy nag euh, son yi bu kon ça veut que nit di nga nekk ak moom mu di la ci suuf. dégg nga wax bi parce que moom moom ki ko yàqal moo nekkoon ak papaam mooy ko mm-hmm. xam nga li xam moom ñi ñi def ko ñi ñi ko def. kooku xam na ko bu baax daan na ko jege. xam na tamit ñi nga xam ne ñoo def lu baa lu lu lu luubal yëpp moom xam na ko moo tax ñu jox ko nii mu ñu jox ko policiers yi. Mm-hmm. gis nga ñi kafuñu réewuñu. ñan ñooy kaf di de. ñii duñu kaf de dinoo taxaw di wax seen wax naan diw lii diw lii diw lii ay soo ko defoon Sénégal. wele loolu dootoo ko defati dootoo ko gendarme dina génn di wax ni comme ni ñu ko defee naan diw moo def lii. Mm. diw moo def lii. Mm. amu fi. lan moo tax kafuñu réewuñu de ñii. kafuñu réew ñu foofu rek laa yem. d' accord jërëjëf am na solo Alaaji. Mhm. ban analyse ngay def euh, li xew actuellement ci ci ci ci Gabon. ak ci yenn réew yi récemment yi fi am yëpp daanaka yu mel nii nga fay nemmeeku. waaw ah, man amoon naa ji sax beneen. gis-gis gis waaye waaye bi sooy bu waxee. Mhm. Euh, dafa tax ma changé waat sama gis-gis. muy maanaam dafa ubbi waat beneen bunt. Mm-hmm. boo xamante ni euh, xooluma woon bunt boobu. bunt boobu léegi boo ko xoolee. Mm. dafa amaat leneen lu bari loo xamante ni mi ngi ci. muy est-ce que Ali Bongo. yëg euh, victime loolu mooy bunt bi son bu kii parce que après tamit développé na ko. Mm-hmm. wane na par rapport ak li militaires yi wax. boo ko mm. comparé militaires yi dañ ne. ñi doon falsifier ay signature am ak affaire yooyu kon wax nañ ñu ñoom militaires yi nañu aalim yi am na lu bari lu mu yëgut mhm. ci biir seen wax mhm. léegi nag am leneen loo xam ne mi ngi ci wax waaw ah wax na ah, waaw wax na wax na wax na loolu non moom wax na lii yi wax non li nga ko teg waaw moom daal woo na ñi ko bëgg ci àddina bi yëpp. ñu ñëw jàppale ko surtout ñëw waaw liir c'est que c'est que li mu li mu li mu wax noonu laa wax li ñu li ñu wax noonu c'est loolu le fait que sax le fait que sax muy wax loolu sax leneen la euh, le fait que sax ñu ne Ali wax na loolu sax léegi mën na nekkaat encore leneen parce que après fu ma jëm parce que fi ma jëm mooy Ali Bongo mi euh, est-ce que France euh, ginnaaw Afrique nga koy rëcc ñu wut pexe génn ci di récupérer Afrique ci beneen côté. Hmm. maanaam Ali Bongo ñàkk na nguur gi. opposant lan la doon wax ndax pro français yi la wala du pro français yi tey bu kooku jotee nguur gi mën na doy waar léegi demal si général bi nga xam ni servir na. Omar Bongo hmm. servir Ali tey kooku moom moo def coup la plupart général yi bu ñuy coup d'état rek. général xel ci que général suba ñu ngi wane photom bu mu ànd ak euh, Macron. waaw général yi général yi sorewuñu ak ñi nga xamante ni bi ñooy nguur gi ni muy doxee. Mm-hmm. ci kii parce que gay kii lañ maanaam bu fekkee ne ci ñi nekk ci armée bi ci ñi nekk ci suuf. peut-être ñooñu mën nañu wax di ay frustré lañ mais daanaka général yi dañuy gundaandaat da seen i mbir day neex day dox day nekk loo xamante ni bi lu kii la léegi est-ce que balaa nguur gi di rëcc est-ce que jaaruñu fële lijjanti coup boo xam ni pour calmer peuple bi léegi ñu jëlaat nguur gi hmm. tée ne dañuy dañuy defaat seen kii parce que nguur gi bañ a rëcc jëm ci loxo parce que bu leen fàtte ni tamit Euh, depuis indépendance ba nga ni. Hmm. Euh, ah, bongo yi ñoom ñoo yore nguur gi maanaam euh, Gabon <laughs> réew la moo xam ne réew mu sumetre la boo amuñu benn problème amuñu kii léegi nag balaa yenn édits yeeg yooyu dafa génn léegi ñu créer benn coup d'état hmm. bàyyi aali mu ñàngal ci suuf comme li Omar wax. def ay déclaration ñu def résidence surveillée ci biir seeni déclaration. Euh, ñu réglé waale ñi nga xamante ni que dafa am ñoo xam ñoom la ñuy sacrifier mooy ñii ñuy tudd seen tur. ñooy ñi nga xam ne ñoom lañu war a sacrifier. ñu sacrifier leen. Euh, pour peuple bi daal di calme. parce que réew mi ah. ah. amul morde coup d'état bi. ah dégguma ci. non non non dégguma ci morde c'est que daal di indi calme léegi fi mu toll nii léegi ñii ñu lim ñooy tax askan bi di jóg di tàcc naan wéy wéy fekk euh, ñoo coup d'état seen bopp. c'est kii mën na ne. coup bi mën na bañ a nekk coup d'état ñoom ñu waxee film la rek acteur la. buy tourner film. mais Alaaji si c'est le contraire claude Van la may ma nga naan ma ni ma ni bu fekkee contraire bi la xam nga li nga wax nii. opposant bi ban xeet discours la yoroon. opposant bi nekkoon président. waaw loolu la ñu war a xooliwaat. opposant bi lan la doon wax. ak lan la ko jeunesse bi toppee lan lañ koy. opposant Omar boobu waaw mais c'est possible. xam nga moom dañ ko jëli moom dañ ko jëli ngemu ko maanaam opposition bi ñoo daje. waaw comme ñoom benn tour rek lay def. Mhm. dooleel ko ñëpp nekk ci ginnaaw mu léegi d'accord mënoon na ko nekk. Mhm. mais bi mu ko nekkee lan moo ko fa jëlee. lan mhm. mooy kii comprendre nga. parce que le fait ko opposition bi daal di dajaloo dem jëli ko ak tamit lan lañ doon campagne xam nga xam nga am na benn boy bu may seetaan mu naan tout est à refaire. <laughs> oui <laughs> benn boy Gabon xam nga il faut à refaire et cetera di expliquer affaire yi. donc ni moo gañe woon moo gagné élection yi mais léegi balaa muy rëcc est-ce que duñu ko kataf jële ko ci beneen loxo bi ak alaaji le fait ñu bàyyi ba ñu organiser élection yi ba pare ba wan la résultat yi ñoom ñuy doog a ñëw te normalement bien la ñu waroon ñu jaaraat beneen porte pour récupérer waat nguur gi waaw mais mu nekk ñoom mais nag mu mel ni nag léegi nag askan wi moom dañuy jàpp ni bongo jóge na fi mais ki fi ñëw mooy kan mais loolu ba amee alaaji ah waaw ah, dëgg la moom parce que nii ñu doon waxee nii seen pour ñu crédible dootul yombati. voilà parce que li ñu defee nii mais mais li saa wax ni est-ce que du est-ce que du système bu bees ci Afrique. ah non mais mën naa ne. ku. te am na réew mu mooy bañ a tudd mais. waa ñu ko jiite bi muy doog a ñëw ñëpp danoo jóg. tàcc ko après avec le temps da nga xam ne sorul France. fort Guinée. soriwul <laughs> oh. soriwul France yaa ngi maanaam yaa des fois mën na doon beneen extrait mën na France mën na jaar mën na maanaam beneen pexe beneen pexe pour ñëwaat waaw yeneen ah. pexe moom dañoo yeneen pexe maanaam bu bi di vele waaw donc il faut tamit bàyyi xel ci loolu. waaw mais nag man bon ci suba waxuma woon loolu soo bu ubbee bunt bi laa eh. soo ko gis nii. alaaji sa waxtaan mais man mais man daal léegi mais man ah. mais man daal léegi. sa wax bu suba beeg bu léegi bi moom nii la def. mais man waaw ah, parce que. ay dafa yeneen mbir. mais mais mais man pour man Gabon man man nag li ma jàpp ah. ute nag lu jaastaa jàpp pour man Gabon lu indi mbir mi ah li indi mbir mi xam mooy lan. mooy couvre-feu bi état d'urgence bi ak kii bi. restriction yi maanaam yow mënuñu xaar bay joxe résultat rek ñu tëj loolu lépp loolu daa am si yóbbi xel yi te bii daa am loo xam ne daf ci xew uh-huh. te askanu Gabon def ko mooy danoo génn commencé manifester même Gabon yi nekk Sénégal dem ci ambassade bi mais est-ce que du loolu moo ne moo ne armée bi mm-hmm. peuple bi jug na kan peuple Gabon jugee ci façon bi bañ. Mm. na bii kenn du foqati seen ndam. xam ne élection daan am ñuy foqati seen ndam ñu koy nangu. Mm-hmm. bii ñu ne kenn du foqati ndam. armée bi mun na. sukkandiku ci loolu ci yan loxo la delluwaat. xam nga armée bi bu fekkoon. ci ci booy jógee yenn yi sax. mun na nekk frustré xam ne moom bi mu nekkoon. moom bi non non mun na nekk fi non dafa yoroon papaam. mais bi Ali Bongo ñëwee. waaw mais bari na ñu àndoon ak papaam. général bi da ci bokk général bi ko écarté général bi la ko écarté woon euh, dañ ko écarté woon nekkoon na sax Sénégal man tey ci information yi mu nekk nekkoon na Sénégal léegi ñibbisiwaat bi mu ñibbisiwaatee lañ ko dénk palais bi pour mu yor sécurité palais bi ah, léegi jaaree foofu nangu palais bi. jeex na xam na nekk ci palais mais moom c'était un frustré mais pour man daal ah, il jeunesse su Afrique na leen gën a déglu. nañu gën a yeewu aussi. Ah, parce que aussi tamit armée léegi jeunesse yi la ñuy déglu. ngi noonu en daal euh, euh, li liy jeexal mbir mi rek mooy président yi ñoom itamit ñu bañ di di di di exagérer parce que ku ñu la wax ne la yow deux mandats nga war a yem bul yokk loo xamante ne nii day indi leneen ay ñoo xamante ne nii lu fi musta am am fii loolu moom yàlla nañ ci yàlla musal. musal ci mboolem réew yi nekk ci biir Afrique yëpp di ñaan yàlla àdduna bi yëpp ajaratu mhm, lii mhm. lañ indi woon tey ci actualité du jour di leen jox dig daje rek suba ak jàmm incha allah incha allah jërëjëf ma jigéen amati na solo lool li nga indeeti ah donc doxantu na tey ba euh, Gabon ba Bongo ban danoo dem danoo jël avion dem waaw kay man kontaan naa ci yow de macha allah